ñëw nga si li nga xam ne moom mooy si rencontre GPS bi. voilà loolu moom dëgg la ndax euh, fi mu toll nii nag nee nañ ci lëjj moom taq nañ ci rek waaw comme na ko ñëpp xam. waaw taq nañ ci rek parce que tamit mbir moom jaratul layaam layaam yi Sonko mooy réew mi. Sonko Sonko mooy mooy mooy Sénégal. sëñ Fall doon wax naan maay Sénégal. fi ne nii Sonko bu ko neexee mu ne ko may senegal sëñ Fall waxu ko woon comme nii nii nii rek maam ni mu jaxasoo ak askan wi ni ko ndaw ñi bëggee ni ko nit ñi bëggee saf xorom. baax am njariñ looloo taxoon mu koy wax te tey jii loolu la Sonko représenté ci dëkk bi mën naa ne sax mooy Afrique loolu moo ci am solo. Ah, mais tey sa sax. non sama teewaay ñëw rek def acte patriotisme maanaam man dama am li may faral di wax Sonko inde bee ko suus ay kemam la ko yàlla booleel muy man yéen ñëpp ñi nga xam ne tey ñëpp bëgg Sénégal dafa dafa leen a ñor bëgg Afrique dafa leen a ñor très normal ñu bëgg Sonko te lim ñu woo dañu gis ne gisuñu leneen lu ko gën di jaamu yàlla politique ci jamono bii bu baax bi nag laa wax moo gën a gaaw a mën a yeggale nit ci yàlla parce que tamit toog sa der rek dem ba ci àll boo xam ne nii ay nit amuñ fa ak yooyu mënoo jaxasoog ñëpp dëgg la loolu ndimbal la mais nekk ci biir nit ñi ba pare te du la tee nekk place bu ñuy lekkee xaalis man ci lu dul yoon mu yomb la nga man mën a muñ euh, bànneex boobu ba pare ñëw ne mosuma lekk fukki dërëm loolu lan moo ko gën di jaamu yàlla loolu acte patriote la moo tax ma ne Sonko am kemam ay kemam ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko wër loolu moo ci moo ci moo ci neex te li ci neex mooy Afrique tàmbali nañoo comprendre xam nga yaa ngi dégg ñuy wax eurobond lu tax wuñ noonu Afrique Afrique booloo nekk benn dem lebandoo que ça soit contrairement ak li nga xam ne moom la Houphouët-Boigny masoon a wax ne la Côte d'Ivoire ne peut pas être le vase laitier de l'Afrique foofu la juumee pourtant bu fekkoon ne tey Allemagne def na noonu mën nañu ne du baax ci itali bu fekkoon ne Allemagne def na noonu du baax ci yenn dëkk yi mais da ngay gis ne Europe dëkk yu am doole ak amul doole yëpp dañuy booloo lépp nga xam ne du doon benn taux boo xam ne du doon dara ñu war lebalante seen biir ba mu des ñu mën koo def eurobond di ko lebal dëkk bu mel ni Sénégal ci taux boo xam ne nii day dépassé loolu léegi loolu nag pour ñu def ko faawu Afrique booloo pour Afrique booloo dañu faaw ñu am sensu benn leader boo xam ne dafay boole ñëpp te leader boobu tey kenn gënu cee taxaw Ousmane Sonko nga xam ne moo joxoñ président Diomaye mais moo tax tey président Diomaye mën a dem Côte d'Ivoire wax ak ñoom mën a dem fee wax ak ñoom Sonko waroon a dem Mali Niger Burkina ak yooyu les états di Sahel mais liggéeyu président Diomaye bu am solo gis ngeen bi mu demee Ghana dem Nigéria lan lañ ko wax lii mën nga cee dox yow mën nga indi jàmm kon li nga xam ne moo naroon doon obstacle président Diomaye tey dafa ñëw nekk solution kon fii Ousmane Sonko waroon a dem en tant que président Pastef soxlaatul mu fay dem parce que fépp la président Diomaye di laaj euh, ratissé su ratissé nag ba lépp na booy Afrique de l'Ouest booloo suñu demee jàkkaarloo benn dëkk ci Europe wala fu mu demee nii danga ñuy xool parce que Sénégal tey du ne da naan ko Sénégal boo bañee Mali nangu wala Sénégal boo bañee Guinée nangu mooy Sénégal léegi moo gine ak Mali yëpp ba ci Côte d'Ivoire ak Ghana suñu amee lu ñu bëgg dañuy nekk benn te lan moo ñu may loolu mooy parce que am nañu benn leadership boo xam ne mënoon naa bokk mënoon na sax nekk président mais ne duma ko def parce que damay dëppoo constitution bi loolu neex ñëpp ba tax tey fu ñu laal mu nooy moo tax c'est pas à négliger tandem bi ñu am muy Sonko Diomaye dañuy ñaan yàlla laf cat gën la gën ñoo dimbale mais Afrique ci boppam mooy Afrique mooy defaru parce que Iran ñoom bi ci Niger France di ko jënde euh, kii bi 4000 francs te alors ko mu jar 100000 ci feneen ba pare France di niitu di leerle lëndëm gi di rey waa Niger te noonu nga mën a waxe waxee uranium boobu noon nga mën a waxee zircon bi nga xam ne mooy mbar mi koy def mi ngi biir Sénégal tey ñaar ñooñu bu ñu booloo tey kan moo ñuy téye tous ñu ngi lay wax autoroute de l'eau te lañ la daan bañ boo ma saan di ci wàllu ndox wala mbay dañuy lànk ci lan lañ lay war a defal mooy tey nga defar du ma wax grand théâtre parce que grand théâtre modèle la mais nga mën a dem fu mel ni centre Abdou am mbaar cinquante milliards loolu nekk na ci xel wala ñu ne la autopont yi 18 autopont ñaata ñu ne la waa euh, nu mu tëddee nan Paris club de Paris xaw ma nu koy tuddee bu ñu lay lebalee xaalis faaw suñu entreprise moo la koy liggéeyal qui s'appelle Matière Matière 137 milliards 18 autopont te benn société Britannique soumissionné 52 milliards Sénégal perte 85 milliards ci noonu maanaam fi nga amee 18 autopont mënoon nga fa am 45 lii mooy bor yi ni ko El Hadj Ndiaye doon wax bor yi moo ñuy xoj maanaam nañu ñu yëkkati bor yi ngir mën a siggi loolu nag bala nga koo def da ngay moom sa bopp ndax kees di jiri du taamu fees fandogo fandogam di dal laaj mooy est-ce que projet bi leen doon jaay projet bi avant ngeen di jël euh, pouvoir bi ak bi ko jëlee ndax jàpp nga ne projet boobu moo fi nekk ba léegi ah bien sûr non projet bi tàmbaleegut ndax xam nga ne budget bi kan moo ko voté président Macky Sall même lii ñu lobee eurobond ñoom la woon lan lañ mën a def yow ndax da ngaa mën a ñëw tey am benn soxna boo takk keneen soxna ba jógee fa tey sa soxna su mag génn kër nga indi sa soxna ndax day fekk mu préparé ceebu jën ba pare nga tuur ceebu jën bi mais du am sens jarul ngay tuur ceebu jën pour togg yaasa mais bàyyil ba suba kay boo mënee togg yaasa nañ xam loxo saf dañuy ekkalee ceebu jën bi Macky Sall teg bu ñu negee ba déwén jële nga xam ne budget bépp dafay sincère ñun ñoo koy voteel suñu bopp ak yooyu ñu doog ñoo natt ci loolu mais fi mu ne nii ba tey li nga ñu mën a nattee rek mooy patriotisme bi ñu woote ñi gu xoon ñu ne leen goqi leen teg réew mi ci yoon chantier boobu la ñu war a mën a wax ak yombal euh, mbay mi jiwu bi yomb comme ni ñu koy defee maa ngi leen jaajëfal bu baax mhm. on peut moo la fi indi n'est-ce pas eh? rencontre bi moo la euh, bokk na ci parce que damaa ñëw tabaski mais loolu tamit bokk na ci alors Lamine euh, tey nga ñëw fii si Grand Théâtre war a jàkkaarloo ak Ousmane Sonko. Euh, tey loolu yow lan la lay def sa xol ak nan nga ko nan nga ko nar a gisee. bueno loolu daal li may wax la dama koy xeeb parce que damaa kontaan boo kontaan bi fu mu yem parce que lu tax lool parce que ay ñett at si ginnaaw Sénégalais amuñu lu ñu dundee fii lu métti dafa dafa méttoon trop trop am na ñu ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xeere leen ci àjjana ñoo xam ne dañoo ñàkk seen loxo wala dara loo xam ne da leen gàllankoor. Ah, yàlla may leen daal pour ñu mun a dundi boo fin du monde daal ci laa mën a wax. d'accord mais seen diggante ak Ousmane Sonko tey si rencontre bi lan lay lan lay représenté ak lan lañ mën a xaar tey. oh président Ousmane Sonko luñ koy xaar dafa bari dafa bëri même moom si boppam sax xam na ko bu baax xam na lool parce que moom taxawaam bi balaa ñuy gërëm ci ñun tamit dañ koy jërëm parce que am na loo xam ne nit bu defee loolu moom ngay njëkk gërëm balaa ngay gërëm keneen parce que lii dina ko ñu bari ñoo xamante sama frère la ñu xam ko mais amul benn problème. ñu bari tamit seen espagnol amul benn problème. vale d'accord con eh, hoy estoy súper contento. Eh, sobre todo eh, he venido a España para presentar este, mm, ¿cómo se llama? Este gran teatro, lo que estamos haciendo, que es una reunión de conferencia de prensa de Preda Usman Sonko. Me mm, voy a saludar con mis amigos que están en España eh, précisément eh, Granollers dëkk bi ma dëkk am naa xarit yu bari ñoo xam ñu ngi ne patriote lañ dañoo sonnoon trop trop mais nosotros también hemos sufrido mucho mucho mucho durante estos oh, tiempos porque Maquesal nos han sufrido mucho, nos han matado mucho, nos han sido muchas cosas que aún yo cuando, estoy pensando lo que, hay cosas que hemos perdido, no vamos a recuperar más. en este vida porque los que están muertos no van a volver más los que están sufriendo no van a no van a, a no van a curar más entonces lo que estamos esperando Usman, eh, Preda Usman Sonko y Preda Diomaye Faye que sabemos que ellos mismos saben muy bien perfectamente en que lo que estamos esperando a ellos nosotros eh, eh sabemos lo que ellos capaz de hacer para eh, arreglar en el Senegal lo que regla o sea que reglar eh, eh justicia, justicia de Senegal, porque todo lo que hemos sufrido, el problema viene de justicia, justicia porque cuando la justicia es tan súper bueno, están para todos, nadie va a sufrir. Pero yo no puedo hacer una cosa, o sea, que robar una cosa o detener un, dinero, eh, de, dinero público. He dicho, bueno, no hay ningún problema porque estoy atrás de Maquisal o estoy atrás de ministerio tal, este ministerio, no, me va a afectar Pues el, el se va muy mal. La verdad que me gustaría que Usman Sonko y Preda Yomafay y Mambur de PASEP que hacen mucho trabajo para Senegal ser mejor eh, el país del mundo. durante estos cinco años. Muy bien, muy bien. Sí, es lo que estoy buscando para ah, rek ah, li ma gën a métti rek ci ci président Ousmane Diomaye Faye ak Ousmane Sonko loolu dama koy wax. ndax dafa am li may métti pour que ñu bàyyi Macky Sall mu dem loolu dafa may métti ba léegi. Ah, non non non waru warul génn fii ci waxuma ñu tëj ko directement mais waruñu ko bàyyi dafa war a toog fii parce que moom daa daa daa jël boppam bi mel ni mooy buur te yàlla. yàlla mooy buur boo xam ne du jeex mais nit koo xam ne bis bi ngay togg nga ne tal jour tal tal euh, tal xaw ma may wax tal dat laa war a jeexal yow lan nga mën a defee mel ni yow doo doo fa jógee même kenn génn la fi da ngay dee da ngay dee bàyyi ñu fi wala nga ñu bàyyi la fi kon loolu dafa may métti loolu moo tax mais li may gën a wax ci ñoom Ousmane Sonko ak Diomaye justice bu ñu ko fooy bu ñu ko fooy rek problème parce que loolu moo ñu indi problème yëpp ñu am fi loolu daal dina ko wax mu ñu fexee euh, nekk pays normal ñëpp ji seen bopp ñu uh, ubbi liggéey ñu xam ne tamit ne fii ba cinq ans fii bugguma benn dëkk boo xamante ni mu ngi di si biir Sénégal mun a aw ma courant wala aw ma yoon loolu warul nekk Sénégal parce que on est de 17 millions de Sénégalais euh, tubaab yoo xam ne ay 40 et quelques millions de habitants ñu ñu am dara loo xamante que tey amuñu dara lu dul géej loolu loolu warul nekk kon dañoo war a fexe xeex lu ñu xeex premier ñu xeex injustice. ñu xeex pauvreté bu nekk Sénégal bi pour mu deñ loolu daal dinaa ko wax ci ñoom loolu mooy sama yóbbante ñu xaar ko luñ ñuy digal mais xam naa moom il est compétent dinañu wax loo xamante dina ko def tamit. merci merci beaucoup bu baax a baax.